kon duñ ko sàkkoo ci keneen walla ñu sàkkoo ko ci neneen lu wutik la nekk fa moom subhaanahu wa taala mbokk yi yann jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot xam ngeen ni ñu ngi taxawoon ak yéen ci bunt bu am importance bañ doon waxtaan ak mbokk yi lenn ci jikko yi nga xamante ne moom lañu ñu alquran joxoñ waa yonent bi jàngale ko sallallahu alayhi wa sallam yonent boobu noonu jàngale lañu alquran joxoñ xam ngeen ñàkkut am lenn ci boroom xam-xam ñu ne weer bu ñu nekk nii di weeru rabiul awwal wolof yi duppee ko weeru gàmmo ñu ne ci weer bi la gane si àddina sallallahu alayhi wa sallam kon dafa jaadu ñu wara waxtaane lenn ci jikkum waaye lenn ci doxalinam waaye lenn ci melokaanam la alquran andi te moom ci jëmmam mu saxal ne noonu mooy doxalinam sallallahu alayhi wa ba tax na ñu bëgg a xuusandik yéen ci alquraanul karim la bur yàlla melalee jikku ku tedd kooku di sango bi sallallahu alayhi wa ci ay béréb yu fasante ko ci alquraan ba tax na keroog ñu ngi leen doon jukkil lenn ci melokaanam alayhi afdalu salaatu wa azka taslima alquraan ba tegtal melokaano yenentu bi sallallahu alayhi wa di jikkoom yu tedd yooyu di melokaanam yu kawe yooyu sallallahu alayhi wa mu daldi ñu si baaxee ay béréb yu fasante ko ci ay ahadisu nabawiya asharif su ko defee ñu nit ñu bokk àndandoor ak yéen géema nab nabi wéttalantik yéen lenn la ko buur yàlla tagge lenn la buur yàlla joxoñ ne sama sang bi sama yonent bi di ar rasulul mustapha salawatu rabbi wa salaamuhu alayh noonu mooy jikko ba ko mooñaale loolu mooy la jikko moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax buñ demee xool bokk na ci bindikat bu mag ka ne laqad zakka allahu taala nabiyina tazkiyatan ma zakkaha li ahdin min alxalq sallallahu alayhi wa sallam bindkat bi nee na ca digg-digg-digg bur yàlla tabaraka wa ki sellal yonent defal ko tazkiya honoré ko defal ko melokaan bu toll nii amul keneen te ko yàlla defal jalla tax mu ne maa zakkaha li ahadin min al buru yàlla de sellalul kenn cellaange ba toll ni lama sellale sellalee yenentu bi salaa sallam mu ne ñu zakkaaha fi aqlihi fa qaal maa dalla saahibukum wa maa gawa buru yàlla sellal ko ci xolam ak ci xelam la ko waa Makka doon jiiñ naan kii de dafa tàqale ko sagoom yàlla de déedéet ma dalla saaxibukum wa ma gawa seen mbokk bi seen doomu ndey bi sama yonent bi ma lay yónni mu doon ki ngeen xam kii tàqale kowul ak sagoom te lépp lu mu nekkee moo leen ko gën a xam kii la ngeen koy jiiñ toqantal ba gën a tuuti taqut fa moom kii tàqale kowul sagoom de waaw te bewul yonent bi taqale kowul ak sagoom te nekkul ku beew ndax waa màkk yi ku faaru màkk yi dem nañ ñu di ko jiñ ne kii de dafa taqale ko sagoom daf di ki beew yàlla ne lool ngeen koy jiiñ tarafatal ayn laalut yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi léegi bindkat bi nee na zakkaahu fi basarihi fa qaal maa zaga al basaru wa maa tagaa waaw yàlla buur bi tabaraka wa taala déggal na ne xar kanamu yonent bi de du luy raf wala luy tiit wala luy ragal waaw cellaangeem weesu na foofu yonent bi xar kanamam du xar kanam buy tiit wala muy raf waaye du xar kanam boo xamante ne dina am ñamuy bégee mu am ñamuy ñiggal xar kanamam du jëmma jooju sallallahu alayhi wa sallam keroog ba Muusa nekkee ci tuuru Sina muy discuter ak boromam la boromam won Muusa dafa daal di tiit ba mu daanu mu daal di xëm waaw ceroog ba buur yàlla invité yenentu bi fa moom ca sidratul muntaha xamal ne yenentu bi keroog tiitut raful waaw kon ñu ne tuuru Sina du sidratul muntaha waaye sang bi di Muhammad sallallahu alayhi wa bokkul ak Muusa ci martaba fa seen borom subhaanahu wa ndax buur yàlla fa mu feeñee yonentu yàlla Muusa ca tuuru am na la fa xew loo xamante ne yàlla mu ñuy wax ci alquran Muusa ba leeru yàlla feeñee dafa daal di daanu xum waaye yonent bi ba ko yàlla invité fa moom ca sidratul muntaha xarkanam bi raful te tiitul amul dara la mel melokaan bu toll nii di nga xamee ngi ci xar kanamam waaye keroog nga dégg ci aaya bi ma zagal basaru wa ma taxa xar kanam bi raful tiitul waaw dégg ci ne keroog ba ko jibril feeñoo ci xar ci melokaanu malaaka xar kanamu yonent raful nga déggee loolu tamit ci maanaa aaya bi sallallahu alayhi wa mbokk yi bokk na ci la bindikat bi ne na yàlla sellalee yonent bi ak nam ko taggee ci xeetu cellaange defu ko lenn ci mbindaafoon yamu bind moom buur bi tabaraka wa taala cellaange bi ni mel yonent bi rek moo ko ràngoo sallallahu alayhi wa sallam tax na bindikat bi nee na zakkaahu fi fuaadihi fa qaal maa kazaba alfuaadu maa raa buur yàlla sellal na E, gémmiñam bu set boobu gémmiñam bu sell boobu yonent bi sallallahu alayhi wasallam buur yàlla sellal na lépp la fay génnee ci kàddu ba tax na buur yàlla ne ko maa kadabal fuaad waaye kàddu gi gémmiñ bi ah amul dara lu ci génn lu du daldi lu déggu dégg dong moo musa génn ci gémmiñ bi te lépp lu mu gis mu doon lu déggu loolu lay wax ci làmmiñam sallallahu alayhi wa sallam bur yàlla garanti na ko ci kàddoom mu ne gémmiñ bi daal amul benn kàddu ba fi génnee lu dul day doon kàddu gu déggu te but ba koy xool ba mu ko gis da doon day doon lu déggu sallallahu alayhi wa sallam nii la ko boromam taggee ci kàddoom zakkaahu fi sadrihi bur yàlla tabaraka wa sellal na yonentu ci tolérance ba nga ko mooñaale yaatu dënn ba toll ni mën naa tollale lu bëri fa qaal buur yàlla ne ko alam nasrah laka sadrak xanaa du man yàlla maa def sa dënn mu doon dënn bu yaatu nga mën a tollale lu bëri xeetu mer nekkut ci si yow xeetu mer mooñaale wu ma la ko xeetu mer du lenn say jikko kon yonent bi daawul mer sallallahu alayhi wa sallam ñu ne alam nasrah laka sadrak yàlla moo ko yenkeewal yonent bi jox ko comme cadeau waaye keroog ba yàlla doon yónni Muusa alayhi salaam ci firawn laa fa am Muusa la mu yàlla da ko ne rabbi shrah li sadri wa yassir li amri nga ma may tolérance ba may toléré kaddu firawn yalla nga ma may sama dënn mun a encaissé lama ma firawn di mokkee ndax firawn dafa munoon communication dafa munoon communiquer par rapport ak na ko Muusa xamee alayhi salaam ba tax na keroog ba ko yàlla yónnee ci firawn Muusa dafa ñaan yàlla mu ne ko rabbi sama borom ishrah lii yàlla nga ma yaatalal ma mun a tolare waxu firawna ci sama dënn moo tax mu ne ko rabbi ishrah li sadri yàlla nga ma may tolérance ba ma mun a tolare waxu fi firawn ndax firawn dafa mun a mokke dafa mun a tooñ dafa mun a waaw ah, firawna moom bu mokke mokkee wala mu yijji la rek sa xol day bon kon Muusa alayhi salaam jikko wii la xam ci firawn moo tax mu ne yàlla ne rabbi sama borom israh li sadri yàlla nga ma yaatalal sama dënn ma mun a tolere lépp li ma firawna di mokkee wala mu di ma ko yijji yalla nga ma may xol ba ko mun a sipporte mu doon dënn ba may tolere waxu firawn kon Muusa fii mbokk yi dinañ gis ne nabiyullahi Muusa alayhi salaam dafa ñaan yàlla yal na ko yàlla may tolérance ba muy toléré waxu firawna xel ak xol ba koy mën a dékku waaye fii yàlla moo ne yonentu bi ne maa jox kado ju toll nii ma jox la dënn bu yaatu nga woon a mën a toléré lépp kon Muusa dafa ñaan yàlla may ko xol bay toléré waxu firawna waaye fii ñu gis ne yàlla moo jox yonent bi xolu tolérance ba mu war a mën a tolérer lawa waa Màkka di ko teg ci xeetu coono ak xeetu mettital kon ñu gis ne kii daf ko demande waaye kii dañ ko jox comme cadeau sallallahu alayhi wa sallam buur yàlla bi léegi bindkat bi ne zakkaahu fii zakkaahu fi dikrihi fa qaal wa rafaana laka dikraka yàlla buur bi tabaraka wa taala tagg na yonent bi na ko ci turam yu sella yi mu ne ko wa rafaana laka dikrak man yàlla ma yëkkati sa tuur ma tollare ko ma taf ko sama tur boo ne laa ilaha illa loo ciy teg da nga naan muhammadun rasulullah noddkat bi bu ne ashhadu an laa ilaha illa lam ciy teg danaan wa ashhadu anna muhammadan rasulullah liir wu juddu moom la ñuy nodd ci noppam su ko defee képp ku nga xamante ne <coughs> waaj ngay dugg ci diini islaam la nga xamante ne mooy digëral sa participation wala sa nekk ci diini islaam du lenn lu dul kalimatu shahaada ba ngay wax mooy ashhadu an la ilaha illa allah maa ngi seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dut yàlla waaye nag wa anna muhammadan naka muhammad de rasulullah yonent yàlla la wala nga ne wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu naka muhammad jaamu bi yàlla la waaye yonent yàlla la sallallahu alayhi wa sallam kon nga gis ne amul dara la ngay wax ci turu yàlla lu dul nga ci turu yonent bi sallallahu alayhi wa moo tax buur yàlla nekkoo zakkaahu bindikat bi nee na buur yàlla tagg na ko fii zikrihi ci turam fa qaal mu ne ko man yàlla maa yëkkati lakka zikrak yëkkati la sa tur mu àgga foo xamante ne lu sama tur ah sa tur moo féete lépp ci kaw sallallahu alayhi wa sallam ba léegi mbokk yi bindikat bi nee na zakkaahu fii zahrihi yàlla buur bi tabaraka wa taala mu ngi ni di ko tagg ne ko teggil naa la yenn ci ay coono yoo xamante ne bu ma la ko tegoon doo ko mun a antan wala say xeet duñ ko mun a antan waaye teggil naa la ko mu doon banneex bi nga xamante ne maa ko may moo tax mu ne ko fa qaal wa wadaana anka wizrak man yàlla maa la woyo falal yenn jaamu yàlla yi wala yenn jaamu yàlla yoo nga xamante ne coono lañu waaye man yàlla maa la ko teggil maa la ko woya falal loolu lu ñu déggee ci ne juróom fukki julli la yàlla joxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog ba mu demoon sidratul muntaha ci isra wal mi'raj keroog ba mu demoon rencontré boromam subhaanahu wa taala cinquante heures la yàlla joxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye yonent yàlla Muusa di ko ne dellul fa sa borom ne ko mu wàññil la ko wàññite boobu noonu moom la yàlla dindi quarante cinq yëpp la fa dindi ba mu des cinq su ko defee nga gis ne waxtu julli juróom yooyu moo fi des yàlla ne ko yàgg say xeet képp ku ko def dama lay fay tiyaabo ki julli juróom fukki julli yooyu waaye nag ba léegi ñu déggee ci ne bu neexoon yàlla mu ne yonent bi ne na nga woor bëccëg bi ak say xeet guddi bi tamit ngeen woor ko éternellement amul dog su boobaa affaire bi si ñun lay métti rek waaye yàlla subhaanahu wa taala buur bu am yërmande la ci xeetu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam na tegil na ko coonoy koor guddi mu ne ko wa wadaana man yàlla maa la teggil anka widraka lay wara a diisal sa loos lu war a diisal sa mbagg lu war a diisal say épaule mu doon xeetu jaamu yàlla yoo xamante ne coono nga ci jëlee wala coono la sa xeet yi di jëlee ci jaamu yàlla yooyu ndege man yàlla mala ko woyofal kon maa namm loolu si yow ak say xeet sallallahu alayhi wa sallam buur yàlla bi léegi bindkat bi nee na zakaahu fi muallimahu yàlla suñu borom tabaraka wa xamal na yonent bi ko ci la mu ko jàngal ci lam ko xamal sallallahu alayhi wa sallam fa qaal bur yàlla ne ko allamahu shadidul quwa ki am kattan bi borom kattan bu jéggi dayo bi mu doon saa yonent bi moo doon jàngal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jibril alayhi salaam yàlla suñu borom bu joxe wax yu jibril jibril moo ko doon wàccee di ko jox yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon sëriñu yonent bi bu de sañ nañ ka wax mooy jibril alayhi salaam yàlla tagg na ko ci ki ko jàngal moo tax mu ne zakkaahu fi muallimahu uh, tagg na yonent bi sallallahu alayhi ci ki ko doon jox waxyu ci ki ko doon jox aaya yi aaya alquraani fa qaal bur yàlla ne ko allamahu xamal na ko shadidul quwa bolom kattan bu jéggi dayo bi te kooku du kenn ku du jibril alayhi salaam zakkaahu ba léegi buru yàlla tagg na ko sellal na ko ñoŋal na ko fii sidqihi ci déggu ba mu nekk waaw déggu ba yonent bi nekkee yàlla tagg na ko ci jikko ba mu nekkee mu ku déggu mu ne ko fa qaal buru yàlla ne ko wa maa yantiqu anil hawa déet kii di wax ci coobare ba kenam la yonent bi wax rek ah aaya la ba jóge ko fa moo tax aaya bi continuer mu ne in huwa illa wahyun yuha kii de lépp lu mu wax ci gémmiñam bi de dañ ko kaa waxyu mu doon dee ba ko buur yàlla dey su ko defee mu daal ko baaxe xeetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam jaamu yàlla yi daal di si bénéficié wu ni lii la leen yàlla sant lii la yàlla tere lii la digal lii la muy tëndekuloo subhaanahu wa taala moo ne yàlla daf ko ne zakkaahu sellal na ko ñoŋal na ko fii sidqihi ci diggu ba mu nekk fa qaal buur yàlla ne ko wa maa yantiqu kii du wax anil hawa ci coobare ba kenam waaye lu fi nekk mooy in huwa illaa wahyun yuuha kii lépp lu mu wax ci gémmiñam bu sell bi dañ ko ka wax yu dañ ko ka déy buur yàlla tabaraka wa taala mooy ki ko ko sant ngir mu yóbbante message bi wax ko xeet bi sallallahu alayhi wa sallam yal nañu ko yàlla fayal waaye ba léegi bindikat bi nee na zakkaahu fi xilmihi nooy ba yonent bi nooy waaw ñàkk digir ba yonent bi doon ku ñàkk digir ñàkk ñagas ba yonent bi nekkutoon waaw yonent bi dafa nooy digiru toon dafa nekk ku ñewent nekkutoon ku ñeges fa qaal yonent bi yàlla tagg na ko ci melokaan bu noobul boobu mu nekkee bur yàlla ne ko bil muminina raufun rahim ci woy yàlla ñi de yonent bi dafa nekk ci ñoom ki leen amal yirmande ki leen ëmbal cofel ak yirmande boo xamante ne keneen ku dut bi amul kenn ki ëmbal way gëm yàlla ñi yërmande bi ni mel yonent dafa yéene way gëm yàlla yi da nga xamante ne mooy yërmande ak cofel sallallahu alayhi wa loolu la buur yàlla seede mu daal di ko tagg mu ne ko bil muminina raufun rahim ci way gëm yàlla ñi yonent bi daf di ki leen umbal ak cofel wa zakkaahu wallahi yàlla buur bi tabaraka wa taala mooy ku tagg yonent bi sallallahu alayhi kullahu ci léppam mu ne ko fa qaal innaka la ala xuluqin azim ca dëgg dëgg dëgg dëgg jikko yu noobul fu ñu jeexee yow fa la sa bos tàmbali muy wéy di dem sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi bokk na ci ba léegi ñu bugg leen fàttali ne incha allah yonent boobu moo ñu baaxee ci suñu jamono jii tey bu fekkente ne mën na nañoo wax hadis bi dafa méngoo ak suñu jamono yonent bi wax nañu ne ci xadisu abi hurayrata radiallahu anhu nee na anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaal yonent bi moo ñu baaxee nañu iyaakum wa dann fa inna dann aktabu alxadis wala ta wala taxaasadu wala tajassasu wala tabaagadu wala tanaafasu wala tadaabaru wala tabaagadu wa kunu ibadallahi ixwaanan saxiihul buxaari wa muslim mbokk yi jikko ji de yonent bi moo ko jàngal ci xadiisu abi hurayrata radiallahu anhu yonent bi nee nañu sallallahu alayhi wa sallam bu leen nekkee ñi am jikko ji sew bi ni mel mu ne ñu iyaakum wal zan maa ngi leen di moytandikuloo njort bu ñaaw iyaakum maa ngi leen di moytandikuloo wa zan njort bu ñaaw fa inna zan njort yu ñaaw de mooy akdabul xadiis mooy wax lu du dëgg foog naa ne ku dem moo def lii foog naa ne ku dem moo dem fii foog naa foog naa foog naa foog naa yu bëri yooyu ku dem moo fi nekk ku dem moo fi dem ku dem ku dem ku dem ndegem wóoru la bu ko amal njortu bu ñaaw ba keroog ngay am lu wér ci loolee yonent bi ne ne iyaakum maa ngi leen di moytandikuloo wa ci ay njort fa inna zann njort bi ngeen gis nii de ak akzabul xadis mooy wax lu du dëgg waaw mu teg ne wala ta xaasadu bu di iñaanante wala te jassasu bu leen di lëñbët kenn ku nekk di bëgg lëñbët la moroomam fanaanoo wala la moroomam toogee wala la moroomam nekkee bu leen ko def wala te xaasadu bu di bañante wala te daabaru bu kenn fexeel jëmale ko ci moroomam di ko gasal ay ndigg sërëxal ngir mu daanu ci pièce bi nga xamante ni bu ci daanoo da nga naan ñëw bu kenn def lii ci pencum jullit ñi ngella waay leen loolu yow mi di topp kaa looy toppee kaawu nit ñi bàyyi loolu yonentu bi dakaa sib te dalakaa moytandikuloo mu daal di wax ne wala tabaagadu bu leen di tongoo wante bu kenn tongoo moroomam waaw bul tongoo sa jabar yow jëkkër waaye yow soxna si tamit bul tongoo sa borom kër yow doom bul tongoo sa waayjur yi yow waayjur bi tamit bul tongoo sa doom yow mi liggéey ak man ci benn béréb bu ma tongoo du ma tongoo ak yow yow mi dikk man wala man mi dikk ak yow bu ñu tongoo wante yonent bi ne wala tabaagadu bu leen di tongoo wante waaye yonent bi jikko yi nga bañ ngir ñu nekkee ko wan jikko la ñu war a nekkee yonent bi ne ñu na ngeen nekk wakuunu na ngeen doon ibadallahi di jaamu yàlla ixwaanan di ay mbokk waaw na ngeen doon jaamu yàlla ngeen mbokk ngeen doon ay mbokk waaw kenn ku nekk na nangoo doon jaamu yàlla waaye na doon mbokku ci mbokk jullitam su ko defee noonu la ñuy déggee maana li nga xamante ne mooy maana xadis bi bi léegi yonente boobu sallallahu alayhi wa sallam la mu xam ci lu baax mu wàccee ko partagé ko ak xeet bi bi léegi bokk ci qaala rasulullahi yonent bi wax na sallallahu alayhi wa sallam yan nañu ko yàlla fay yan nañ ko yàlla dottil xéwal ak mucc mu ne ñu inna du'a laa yaruddu bayna al azani wal iqaama fad'u nee na waxtoo ngi nii boo xamante ne képp ku sax di ko ñaan yàlla yàlla du delloo sa ñaan diggante noddu ak jamono bu ñuy liqaam jamono bu ñu noddee ba noppi ak jamono bu ñuy waaj a liqaam yonent bi nee na képp ku fa ñaan yàlla yàlla day nangu sa ñaan kon ëpp na waaw ëpp na nit ki di ko sàggane su ko defee ñu bàyyi xel jamono yooyu mbokk yi ba léegi bokk na ci imaam Shafii rahimahullah qaala imaam Shafii rahimahullah imaam Shafii moo ñu baaxee ne ñu talab na taraku zunub maa ngi ut di xool ni may bàyyee bàkkaar fa wajadnaahu bi salaatu duha ma fekk képp ku bëgg a bàyyi bàkkaar na saxoo di julli yoor mu ne wa na diyaul qubur ma doon sàkku di ut la may am ci sama bàmmel comme limeer fa naaxu fi qiraati al waaye fekk naa limeer ba mu doon sàkku ngir mu doon projecteur ci sama bàmmel fekk naa ndigem njàngum alquran falaa ko fekk njàngum alqur'aan day leeral bàmmelu kiy jàng alqur'aan mu ne wa talabna ubuurul siraat fa wajadnaahu fi sawm wa sadaqa nee na man doon sàkku di géema gistu naka lay jaaree siraat bi ma jiggi pom bi ñu naan siraat te mu nekk diggante arjanna ak safara nee na bi ma doon ut la ma si mën a jéggiloo te ma bañ a daanu ci biir safara soosu mu ne fa wajat naa fekk na la ma war a mën a jéggil pont boobu fekk naa ndege mooy fi sawm wa sadaqa ci woor ak ci génne a sarax di woor wóoru naafila boole ko wooru farata ak di joxe sarax day tax nga jéggi siraat facilement waaw mu ne wa talabna dillul arsh fa wajadnaahu fi soxbati saalihin nee na man doon uddi sàkku ana fu may ame tàbbi ana naka lay tàbbee ci këru keroog bés pinc ci taxtu jillu rahman ci tirminu yàlla ana ban laissez-passer moo mu war a mën a tàbbil ci këru yàlla keroog di arsh mu ne fa wajadnaahu fi soxbati saalihin ndekete man ko dem fekk ci àndandoor yu baax kon àndandoor yu baax àndandoor ku baax moo xam góor la wala jigéen te mu nekk ku baax dalay ñoddi dalay tax a baax su ko defee keroog bés pénc yàlla booleel ak ñu baax ñooñu mu tabbil leen ci ker bi nga xamante ne amul benn ker bu budul keru yàlla kon àndandoor ku baax dalay tax a tabbiloo ci keru yàlla keroog bés pénc yal nañu ko buur yàlla yombal amin ya rabbal alamin mbokk yi waxtaan bi jeexul dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ñu war a joxe xibaar ñu ngi nii taxaw ñu fas ni leen jibbal béréb bi saa ilina mawla jalla wa ala an yajcalana min alladina yastamicuuna alqawla allahumma ya rabbi aati nufusana wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaaha fa nicma almawla wa nicma annasir allahuma jacalna min alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna axsana allahuma ya rabbi aminna fi awtaanina waslih illahuma aimatana wa wulaata umuurina allahuma ya rabbi ixfad bilaadana min alfitan ma dahara minha wa ma batan amin ya rabbal alamin baraka allahu lii wa lakum fi alqur'ani alazim wa nafacani allahu wa iyaakum bima fihi min alayaati wa dikri alhakim aqulu ma tasma'uun wa astaghfirullaha lii wa lakum min kulli zamin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh